no di mbokku axlu làmb ñu ngi nuyu di leen ziar di leen jox wàcc waay bu baax a baax a baax di bëggee waa Général TV yëpp di bëggee waa Général TV Pro di bëggee mbokk internet Général TV yëpp tey nag ñoo ngi fii ci Ndorong euh, wala ñu ne Ocass fekk si champion bu mag mu doon daanaan si wàllum làmb amoon bés bu rëy keroog dimanche si stadium Lamine Gueye dañ koy jox mu présenté wu wax ñu moom mooy kan fu mu dëkk ak li mu jot a def si làmb ak fu mu jaar mbër ziar nañ la bisimilah. waaw général fay auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bañ sante yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Koso Mbàkke di ko ñaanal mbak mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak njaboot sëñ Muntaxa gépp njaboot sëñ Bas Mbul maa ngi leen bu baax njaboot sëñ Mamor maa ngi leen bu baax eh, di nuyu fi ma juddoo muy Touba Ndorang rawatina Okas rawatina sama ferte xaaxum gii ma dëkk maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu wér a wér a wér di nuyu suñu fan si club bi président bi di nuyu waa Arey Galaay bi nga xam ne ñoom laa am bu te ñoom laa gis maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di jox seen wàcce waaye di nuyu ñu ñu jàpp si bis bi ba tey suñu borom def mu egsi fii maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp staff bi ñu yor wàllu musique bi xam nga ñoom Ndiassé Talla Gumbala Cheikh Palado gaa yëpp maa ngi leen di nuyu Modou Gueye sama rak maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp gaa yi ma doon àndal entraînement ñoom saa kees. acca acca dinañ ci ñëw après acca ñu yàgg le mu jógee keroog ci bés bu rëy stadium Lamine Gueye amoon fa combat mu doonoon avant dernier combat doon combat spécial mu doxoon si digganteem ak Eumeu Sène bu Passoir yàlla dimbale ko si may ko si ndam léegi avant ñuy dugg si loolu mën nañu xam Balla Gaye bu Ocass ñaata combat nga jot si arène bi. waaw ah, moom vraiment bëri na. Hmm. tey booy ñoo ngi si ay douze combats xaw ma xaw ma xaw ma quatorze. douze combats avec frappe wala da ngaa boole simple bi ak frappe. non frappe bi rek simple bi boole mu ko si parce que ñun làmb dañ ko foyee. ah bi ñuy xale lañ lañ doon topp suñu mag galaay. Hmm. muy bëre mbapat ñu jaaree si di fo di bëri ay làmbu mbedd fooyantoog saako ceeb ak yu mel noonu man naan dañ koo jàngee bëre boobu ba léegi nag si lañ si lañ nekk ba doon ay mbër moo tax boole wuñu sax làmb li ñu bëri arène rek lañ la wax bëre dóor bi laa lay wax ñoo ngi si ay 14 combats fi mu toll nii. ay ñaata fi nombre de victoire yi. non bëri na victoire yi bëri na quoi. Hmm. waaw victoire moom vraiment bëri na. waaw moo xam naa ne daal moom. Hmm. defet yi moo néew defet yi sax lañ gën a jàpp defet yi daal moo gën a néew ko victoire waaw waaw parce que fëgg laa daan nduur nduur mhm. ah Balla Gaye 3 waaw mais li si lépp ay victoire la kon ñoo ngi si onze victoire trois defet daal macha allah loolu am na waaw tromport maa ko daan ku ci mel ni trompeur Sara waaw maa daan Jogay Sarr bu ndargu ndaw am ay cinq combats cinq victoire laa ko daan champion la di ko nuyu de passage. waaw maa daan ma ma maa daan am seen passoir am seen passoir. am seen passoir moom nga mujjee bëri. waaw maa daan ak am junior bëri woo am junior maam jambaan tamit wala. Ah, ah, waaw bébé ama. bébé ama waaw maa ko daan waaw ko victoire na daal vraiment bëri waaw. dëgg la léegi bu ñu jógee si loolu ñu dugg ci combat bi. waaw combat bi nga xam ne moo ñu indi tey moo ñu a teew tey jii. muy sa digganteeg Eumeu Sène Passoir est-ce que mënoon nañu xam nan nga préparé combat bi préparation combat bi nga ñëwal ñu si Balla Gaye waaw préparation bi moom combat bi dañ koo jël rek coow li bëri mm-hmm. ñu xam ne ñun mm-hmm. coole moom muy bëri mais ñun xam nañ ki doon parce que affaire bi jom la ak fula ak fayda mm-hmm. du affaire du wax du affaire de gëree si mbedd yeeg yooyu noonu parce que bu wax jotee wax nañ bañ boole ñu ku nekk xas sa morom ngi mel nii léegi jaratu toog fenn di wax wala ngay toog fenn di yërëmtalu liggéey rek moo si am solo jëf. léegi ñu gis Balla Gaye Ocass nekkoon Kaolack avant combat bi taxaw bi combat bi taxawee Balla Gaye dem dakaar préparer ji lan lan nga gis si yoonu ndakaaru ba tax nga dem dakaar préparé sa combat. waaw parce que dañoo xool li manqué si ñun. ñu war koo liggéey. war koo liggéey parce que bëri nañ ay 14 combats xam nañ xam nañ liñ manqué ñu war koo liggéey muy doole ñu xool na Kaolack tàng na. am na place entraînement am na salle musculation. Dakar da nga fa demoon ci écurie wala da nga demoon sa yoonu bopp rek di ànd ak montagne di yéeg di wàcc comme ni ko gars yi defee wala da nga demoon ci écurie bi. non nekk moo woon benn rek lonko ñoom. ñu nekk Gàlle Valdo bu bul faale grand Valdo ñoo ngi koy kon kon woon Pikine. fee Malika. ah Malika. waaw xam nga Valdo dafa jël appartement pour pour hivernal. la fa lañ nekkoon. ñu lonko suñ benn man ak saa waaw ñoo ñoom ñoom ñoom kii booy mari rak rak raku général Malick kii kii bi. grand manique rak grand bi waaw ñoom boros. Mhm. Ah, ñu ma jàppale bu baax parce que ñooñu ma lay wax moom bu dee bëre ñoom la fekk baax séeréer yi mi moom bëre rek lañuy def ñu ànd ak ñoom liggéey liggéey bu métti liggéey boo xam ne nag fulaak fayda quoi parce que gisuma ku naan ma jàppal gisuma ku naan ma bàyyil bu fekkoon ne def mu fulaak fayda tey li ma indi du ma ko indi mais day métti ma nekk fa di rey sama xam ne li ma bëgg daal xam li ma tax ma bàyyi sama supporter yi Kaolack fii dem Dakar pour bu ma ñibbisee parce que làmb jorut nga boo boo simee ko ñu naan ay di photo yu yónneeg yooyu noonu quoi boo taxawee di géew rek ñëpp dañu xam ne léegi que est-ce que li la yóbbu woon Dakar gis nga ko gis nga gis nga résultat yaa nga woon làmb ja waaw ba pare xam nga li ñu yóbbu woon moom lañ liggéey moom lañ waajalee bis bi moom lañ indi moom lañ moom lañ def yàlla defal ñu si ndam xam nga nit da nga jaam dana def pexem mais yàlla ak dogalam mais boo defee pexe suñ borom fekk si la si kooku da ngay sant yàlla bu wér waaw loolu am na solo léegi bu ñu bu ñu jógee si préparation bi léegi dañuy ñëw si wàllum combat bi le jour J ah. ñu gis la stade man damaa yéex a dugg si. mais bi ma ñëwee gis naa Balla Gaye beneen façon beneen gis ma gis la si beneen facette quoi. gis Balla Gaye bu kalm Balla gay bu sérieux respecté kombaa bi lan ma waroon loolu mbër. respecté sama adversaire. Mhm. adversaire kenn du ko xeeb. Mhm. bis bi ñun ñaar dañ koo fay fay ma. ma jël li ma moom bàyyee ko li moom mais bu ma bëggee jël li ma moom li moom man ma ma bëgg koo mhm. day métti quoi damaa jël li ma moom yem si bàyyee ko moom. école lañ bokkoon école ajuma mm. écrit ajuma ndaanaan bu nañ fa écrit la mm. mais nag buñ demee ba occasion am écrit ñu ñibbi suñ koñ mm-hmm. di défendre suñ couleur koñ mm-hmm. ku ñu su koñ bëgg rek dañuy jëli kooku dem bëreek moom loolu moom booleeg moom est-ce taxawaloon ko jafe na jafe wutoon jafe wut parce que bëggoon ma bëggoon naa ah bon ah, man nag dama gisoon seen combat pour taxawal ko dina xawoon a métti quoi xam nga lien bi ngeen am am lien ak yeneen ñun ñëpp ñoo bokk champion yëpp ñoo la tey moom war naa mën a am combat di bëri ji Dakar ma gunge ko man mii war naa mën a am combat di présenté Kaolack mu gunge ma mais dañoo toll moment boo xam ni quartier la ñuy présenté muy présenté Passoir may présenté Ocas waaw kon du yomb daal waaw léegi ñëw si wàllu mobilisation keroog ñu gis car macha allah stade bi fees na waaw mooy li ma wax rek comme li fi ma dëkk la rek jox ñëpp cër respecté mag ñi fonk xale yi waaw wàccee sama bopp mënu maa gis benn succès gis nga tey fi ma fekk émission bi waa arabi ñoom laa am ñoom laa liggéey bépp ñoom la président Bané mooy président fan si club bi moo si nekk def liggéey ànd ak waa koñ bi mais rek ñëpp jàppale ñu koo ne Balla Gaye mooy bëre ñu bàyyi xale yi ñu dem stade bàyyi sa doom mu dem stade ba minuit une heure kooku yaakaar naa yar moo koy maye te su ma si doon def benn danaa ko yokk def fukk parce que korog li ma dugal stade man mii sax daf maa yéem vraiment waaw. macha allah léegi bu ñu ñëwee dañuy dañuy dugg direct si combat bi hmm? est m que mënoon nañu xam combat bi nan ko bëree. waaw combat bi moom gëm-gëm laa ko bëree. parce que bi ma ñëwee. ak lu ñu wax it combat yombul de. waaw yombul métti na gisoo bët bi nii. ko bëree. ma ko bëree rek bi ñu ñëwee bëree rek euh, combat bi signature contrat bi yëpp bëri coow. Mhm. mais gëm-gëm bi ma amoon. Mhm. ma xam ne dàqu ma koo bëree dàqu ma koo xeex. waaw la nag. waaw ama seen passoire lu ñu wax xam nga dinañ ko seedal njàmbaaram champion la mën na bëre da doon mbapat xam nga day def lépp quoi. non la jàmbaar la doon bëre ak jàmbaar joo xam ni mhm. bu ñu la yónnee jom nga tegg ma doo am mhm. waaw bu ñu la yónnee ko am jom nga tegg ma doo am biñu egsee rek damaa woo Ndiassé ñoom taalagumba la booy yor sama musique beeg yëpp ne leen xeexlawu ma kenn xulaloo ma kenn bu leen saaga bàyyi leen bu leen xëppee ndox bàyyi leen maay bëre mhm. buñ duggee digg géew bi licencier bi man maa koy def te buñ duggee licencier bi maa ko def waaw loolu la rek waaw léegi ñu gis combat bi arbitre sifflé xam nga ngeen def round d'observation dégluwante tuuti après ngeen déclenché xeex bi ngeen xeexee yaakaar naa yéen ñaar ñëpp ku ne jël na ko ba su ma juumul sax foog naa rëpp am na ci ay trois affaire yu mel. dañoo kaw waaw dañoo kaw ñun ñaar kaw mhm. waaw que dañoo dañoo dem euh, raw moo la moo la dóor coup bu dal wala yéen ñaar da ngeen joxante ay coup. xam nga man xam naa ni mu paree combat bi li ñu naan kaw lax rëyut. dañ ko cokkaas ko boo ko cokkaasee boo ko dooree dana ñëw fay si nga jël ko daan ko parce que yaa moo la sut am njool la mhm. loolu sax pare naa ko si combat ba bu may liggéey saal euh, squat la ëpp lu may def pour sama bu ko jëlee mu tegaat ko ak waaw mais léegi bi ma dóoree fayu ma loolu dafa jaaxal da koo jaaxal ba léegi kii li tax ma door ko fayut xam naa loolu jaaxal na ko te mbër musuma dóor si arène bi léegi nag mu dóor ma fayu ma ma taxaw léewaatal xool ko xoolaat ko ñëwut ma xam ne kii xalaatam jeex na ma daw dàq ko fe ñëpp liggéey nañ mooy li ma la wax rek ñaari gaynde ñoo doon daje mais liggéey nañ parce que man bi ma dóoree bi ma kawa noonu bu fekkoon oma doole damay daan trois appels laa def gaaw jugaat ñu jóg ñu ñaar ñëpp ñu taxaw fi ñu jugaatee nag laa ko may laa ko may jàmm ma daw dàq ko jàpp sama benn loxo doon naa ko sama supporter yi man yàlla moo may loo xam ne ni bëri la su ma jàppee du ma xalaat bi ma jàppee sama benn loxo ŋoobu ko mu ñëw ma koy yéeg di ko di ko jéggi di ko yéeg di ko jéggi ba kott ko àgg ko fu ma ko ba a àgg weñ ko mu tëdd quoi parce que doole doxul jàmm daal waaw yow bi bi ngeen jàppante da ngaa sentir ne daal yaa ko yaa ko ëpp doole ci combat bi yaa na gën a pare ci combat bi liggéey na ne liggéey yamuñ liggéey yamuñ combat bi daj naa si coono yoo xam ne feebar ñetti yoon biir semaine combat bi jeudi feebar naa ba maa ngi maa ngi demal rek ànd ak sa ngor nga bëre ji quoi. mais mais yow loolu est-ce que du risque mbër. xam nga nga nga feebar jeudi vendredi samedi ba set dimanche war a nekk jour combat bi nga ñëw bëre si. non damaa xam li ma feebar damaa xam ne du dara mm. euh, entraînement yu métti kalaate ma la rek. Mm. léegi bu ma bu ma jëlee ñaari butéel samedi mhm. récupéré ajjuma samedi dimanche récupéré génnu ma dem ma fenn danaa war a mën a dem bëre ji quoi loolu la rek est-ce que am nga mbër ban ban kele nga ko daane ban kele nga daane mbër dama ko yëg jég ko dama ko caxabal ŋoobu ko dama ko xëcc danga ko toog quoi ko mhm. caxabal ko mhm. mais biñu demee bay àgg suuf nag maa ngi doon xalaat mu xattar bi ma parce que ndaanaan la non ndaanaan la ndaanaan bu bërikat dama ko dama ko sukkër bi baale si suuf dama ko baraake sukkër bi Ah, yàlla may la ndam si sa passoir di nuyu au passage mu doon ndaanaan doon champion comme ni ñu ko waxee jëm mbër jël ma rek parce que ndaanaan moom ndaanaan lay jël comme ñan comme ñan fii ci Kaolack xam nga turu gaay waaw doole na jël ñu bëre usine doole men waaw yaakaar naa si victoire la jógee ah. caat bi daan saa kees sama mhm. na ma jël ñu bëre. yow tamit su ma bii mooy sa deuxième victoire yoo tegle parce que sa combat yàq pakala pakala ñëwutoon yow la. est du troisième. ah victoire yoo xam ah, dafa dafa tegle. Ah, kon yow daanaka kenn waratoo laa bañ ci wàllu ah. lamb kaw la. waaw ñoom ñëpp sax maa leen ëpp ay victoire hmm. ñi may laaj maa leen ëpp victoire damaa bëgg a bëre ñoom rek ah, parce que bu ma non non non non bul taxaw caméra yi tiim la nii affaire tiim la ngay ngay wax loolu neex ne gaa yàlla ëpp victoire xam nga te gaa yi ay ndaan lañ xam naa def nañ fi loo xam ne peut-être sax yow defoo ko fi voilà sene man man man tooguma dajale fan si club mhm. yóbbu estade mhm. man damaa bëri si làmmu mbedd yi ba ñëpp xam ma ma ñëw estade bëre bëre door ñëpp xam ma mhm. man même bu bu nekkul sax mbër mu mooy bëreel su ma bëree yow ba pare say mën naa bëree yow moo boo gisee sax may moytu yenn kàddu yeeg yooyu Kaolack ñi ma bëgg dafa bëri te làmb lañ ma bëggee ak sama mën a bëri ak sama am jom léegi moo waral bu ma bëree mbër ba pare du ma bëgg ñu waxante lu ñaaw wala ñu defante lu ñaaw parce que bu ma amaatee combat ay mbokkam ak waa koñam man la ñuy supporter caat bi daan saa kees caat bu lew na buñ ma ko joxee ma bëree moom ah, caat moo daan keroog grand combat est-ce que dina nangu bëri yow waaw làmb hmm. doole usine doole ma ko joxee ma bëreeg moom ak raglos passoir waaw laa jugee siège baa nga fa bu ñëwee ma bëreeg moom li ngay euh, bu ñu waxee dëgg ah li ngay ñi ngay lim yëpp say naataango lañ parce que fii ni ma koy waxee rek làmb Kaolack moom gars yi rawante wuñu laa njomboor bàyyi tamit waaw bu ñëwee daan barki na ñëw ma may ko revanche ah, mais tamit caat sonal na leen de caat bu na sonal na leen trop parce que foog na am fi deux victoires vraiment may masawu gaa yooyu saa kees saa kajoor xam nga ñoom ay champion lañ waaw mais làmb moo moo bindoo noonu làmb moo bindoo noonu tey da ngay daan suba ñu daan la mais ñun occasion ku ñu xam-xam ñu si jom parce que amuñ sax mbër mu ndaw waaw amuñ sax mbër mu ndaw mais nag maa ngi leen masawu bu baax mais nag na ñëw ñu bëri daal ñu gis keroog ñu gis keroog si journée bi tamit dimanche ngeen amoon trois combats ngeen amoon maanaam wàllum premier combat Tapha Tine foog naa moo daan jël bu rëy vingt et un secondes deuxième combat bi yaa ko doon bëre troisième combat bi Sa Thiès yàlla may leen ñaari victoire. waaw xañ leen benn bi. waaw mooy li ma wax rek di féliciter Tapha Tine mhm. di ko wax làmb nii la parce que gis nga bi ma jógee Dakar. Mhm. day ñëw entraînement ànd man ma teg ko coono yi métti li ma jëlee Dakar. Mhm. ma koy teg mu nangu ko. ma xam ne boobi am na gëm-gëm am na bëgg-bëgg te loolu la ko yàlla yàlla noonu la ko yàlla dogalee quoi may ko ndam ma koy wax làmb moom noonu la da ngay dégg ndigal li ñu la mag rek ànd ak ñoom yàlla may la ndam di bu ñuy tëdd di lu ma indi rek moom la indi yàlla mooy maye ndam xam nga maa ngi ñaan bu ëllëgee bu amee combat yàlla may ko ndam magam yi sonn si moom ñoom laat sëy ñoom ñëpp xam nga mm. vraiment dañ nañ si coono mais jàmbaar lañ doon yóbbu lii la yàlla dogal kooku mooy Balla Gaye bu Ocass le grand champion gis ngeen ko wax na fi lim li li ëppoon solo si émission bi wax na ko wax na fi mu bëgg a jëm wax na ay objectif am si làmb léegi nag dañ koy jox dernier mot bi Balla Gaye Ocass ñan ñan ngay sant di leen gërëm ñi la jàppale woon ci combat waaw sant rek écurie bi ma nekk. staff bi muy écurie Ocass. Mhm. su ma santee président bi grand Saliou Badiane grand Saliou Diagne. sant naa ñëpp. sunu grand frère la di ko nuyu di ko mu doon grand bu baax grand boo xam ne macha allah dafa bëgg làmb te képp kuy yëngu làmb ci côté bi da lay jàppale. loolu moom ñun ñi xam nañ ci dara ñun ñuy wax ak yow koy sant di sant sama mag Akim Amar na si quoi si combat di sant ñëpp rek koo xam ne jàppale si staff équipe bi di fan sama fan si club bi bu ma santee Bandé chaque jour na góor ñi laay sant mais tey jigéen ñi sant am nañ ci solo de ñoom Ndeye Khady Cissé parce que parce que ñooy togg añi ñooy ñooy ci combat wadda wadda sama nijaay Jibi Thiam mooy président waañ bi ah ñoom Absa Ba sama rakk Nabou Jole ah xale koñ bi ñoom Ndeye Fama ñoom Ami Sow Ndeye Absa sama jarbaat ñoom ñëpp maa ne leen sant sama Khoudia Ndiaye mi tamit aussi maa ngi koy sant sama camarade de classe la ñoom day faama ñoom Khoudia Ndiaye a ñoom ñëpp maa leen ni sant di leen gërëm ci xale jigéen yi waaw Zeyna Kara xam nga nday faama mu njuufeen ñoom ñëpp maa leen di sant di leen gërëm ma oh, dañoo mafia bi biis doon biis bi waaw ay Adama Cissé ñoom ñëpp rek maam Fatou Gueye dañ ciy sonn quoi waaw waa xaaxum yi maa na leen sant bu baax di leen gërëm waa Ngani léegi nag autorité yi jàppoon si combat bi xam naa ne man moom liir gi nii sama bët yi xam nga combat bi moo ma jàpp da nga may liiral rek ma tudd seen waa waaw sama grand Maodo Samb mm. maa ngi koy sant bu baax waa DG Pape Demba bi tey ak équipe bi mu àndal ñoom Saliou Badiane Touba Laye mm-hmm. ñoom ñëpp jàpp nañ si combat bi waaw Modou Diola sama doom day kooku sax dootuma ko sant mm-hmm. waaw dama koy baa yàlla suñu borom mm-hmm. waa ay As maa ngi leen sant Modou Taya maa ngi koy sant borom France gis naa jàppale yi Ibra Seck sama rak sama xarit waaw Xaadim Ndiaye Espagne waaw Pam Ndongo sama grand moom sama xaritu mag la jàpp na si làmb ji depuis Italie waaw depuis Italie woy waaw Seydou Mbodj sama waaw Seydou Mbodj suñu ah, suñu Seydou suñu Seydou waaw la ñoo nuyu de passage ah Seydou Mbodj lay bëgg depuis Espagne ah. waaw moom sama waay la moom bu gisee affaire bi dina <laughs> dana abonné dina xam <laughs> waaw waaw waaw Tafa Souran bu baax di ko sant ak Pape Seck Caparal mm. waa place ba yëpp maa ngi leen sant waaw Cheikh Diop Touba mooy safooru sëñ Kosa Mbacke sama yaakaaru tey ak ëllëg waaw sonn na si combat bi trop day woote chaque jour foo tool waa kër sëñ Bas Mbuli soxna aji mm-hmm. chaque jour mu woo mun taxaa combat bi kañ la combat vraiment maa ngi sant di leen wax Mbacke Balla ñaani egsi na waa Touba gépp sama mbokk si daara ji kii minam Saloum Mbour Kayal ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm aca aba aba aba aba mu borom daaru maa ngi koy sant aba bu booy men la waaw aba bu booy Saloum maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm sonn na si combat bi trop waaw ak akim béy waaw sama sama colonel la kii douane boobu maa ngi koy sant bu baax jàpp na si bu baax sama benn grand Abdou Salam police centrale maa ngi koy sant bu baax Abdou Salam waaw kooku li nekk si man moo ko def si man daf may woo di ma yedd di ma conseil waaw maa ngi koy sant bu baax Mbaye Ngom waaw DG Kër de Ville mhm. waaw monsieur le maire maa ngi koy sant bu baax kooku foog naa yéen a bokk koñ waaw waaw kooku sama mag la rakab Ousmane Ngom sa contact mooy ñëw di ma téel sama xam naa leen xam samay camarade dëkk waaw waaw ay Baye Fall lañ waaw aca Galaye Gadiaga le champion depuis Espagne moom moo ñu dugal si làmb bu ñuy bëre sax moo ñuy conseil lu ñu bëre moom li lu ko war rek lay def kooku mooy njasam di ko nuyu de passage suñu grand waaw soxna F Ndoy kuy defar la soxna su baax la maa ngi koy nuyu baax di ko gërëm waaw DJ Omay sama njaatige xam nga maa ngi koy sant moom ah, di ko wax sant naa la gërëm naa la waaw vraiment kontaan naa si yow gis naa yéen a yeeg ñaan di sant ñëpp di gërëm ñëpp waa arabi waa arabi waa aragalaay mafia bi sama booy ndaw yi ñoom Codé ma Abdou ñi may bokkal gàlle bu may tëdd ci dañ ciy sonn waaw waa waa arabi waaw gis nga mafia nga ne ñoom Talla Gumbale Ndiasse ah Cheikh gis nga gaa jàmbaar ji la dañoo sàcc téléphone am si combat bi ah. gaa yëpp xale ji <laughs> waaw maa leen daal waaw di leen ziar waaw sama booy élèves yi gis waaw ay Ablaye Sow waaw. di bëgg ñëpp di gërëmaan ñëpp. di sant bu baax di sant nag maara yi may ñaanal. Cheikh Mbacke Diouf bu Bambey. Mhm. maa ngi koy sant. Mhm. bu baax a baax a baax a baax baax sama baale sama sëriñ la. maa ngi sant sama sëriñ bu nekk Medina Salaam. sëñ Makiw Touré. Mhm. sëñ Makiw Touré bu Medina Salaam maa ngi koy sant bu baax. Ah, mais mais Baale wax naa waa Sénégal yëpp ngay sant. sëñ Mbacke Dieng maa koy sant. <laughs> alisa bi jeexagul tey. waaw sëñ Saliou Diouf. bu Touba maa ngi koy sant sama papa Baye Ndonga Wade xam nga paa yi ma jàppale yëpp maa leen sant di leen gërëm sama nijaay Modou Feeraay maire Thièna suñu maire bee jaay côté café mm. sama mag Fat Ndiaye day jàpp samay combat Fat Ndiaye maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaw Général TV sama télé la surtout nag waaw képp kuy bëggee baa Gaye Ocass nanga si abonné mm. sama mbokk yi nekk Touba bu leen bàyyi fenn ngeen abonné Général TV sama sama nawle moo ko moom sama génération mm. ami de la enfant noonu la. Ah, waaw noonu la noonu ami d'enfance. waaw ah, ah, as bu gisee lii dana ma ree quoi as a ñàkk de. français mbër la. waaw ami de enfance la Général TV ñoo ko moom. képp kuy bëggee Balla Gaye Ocass baa ngay bëggee écurie Ocass mbooloo suñ site bi la ñëpp abonné. waaw ñu jàpp si mu jëm sa kaw sa kanam bu soobee yàlla dana doon télé raw ay 2STV. amiin amiin waaw maam Diarra mu Serigne Saliou Touba maa koy sant bu fee Dakar maam Diarra mu Serigne Saliou maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaw jërëjëf aca mbër jaajëf ah kontaan nañu trop trop trop waaw aca sama gars yi loolu moo fi xewoon ah euh, ñu ñëwoon fii tey Ocass wala ñu ne Ndorong arrêt galaay fekk si le grand champion Balla Gaye bu Ocass mu doon ndaanaan bokk ci làmb doon ndaanaan boo xam ne kenn dootu ko présenté fii ci Kaolack ah euh, mu bëre keroog dimanche passé yàlla may ko ndam jël bu rëy ci kaw ama seen passoir am nga loolu moo fi xewoon sama gars yi mbokk internet Général TV di leen bëggee di leen ziar yéen ñëpp ah leen ñaan nag xam nga abonné yi a yokk di leen abonné di partager di commenter di aimer sama parce que site bi suñu site la ah di ñaan waa région de Kaolack xam nga yéen ñëpp yéen ñuy seetaan ngeen jàpp ci affaire yi xam ne site bi seen doom moo moom seen rak seen frère xam nga mbëri Kaolack yëpp waa jàpp leen site bi parce que yaakaar naa xammee ngeen ma parce que buñu ne Pape le général waa Dakar ñooy wax loolu Pape général waa Kaolack général bu ngaan la wax site bi nag seen doomu ndey seen xarit général bu ngaan moo ko moom moo ko créé di bëggee ah. moo ngi Dakar Mamadou ah. Modou Sarr la frère depuis Saate Waly ah di bëggee Ousseynou Mbodj xam nga suñu limee dañuy juum di bëggee mbokk internet yëpp nag su ma limee damay juum ñëpp ñëpp ku loxum képp kuy bëggee Général TV ñoo lay siyaar bu baax a baax di leen jox wàccuwaay ate loolu moo fexe woon sama gars yi fii la woon ah si are galaay Ocas euh, champion bi le grand champion bala Balla Gaye bu Ocas di ko féliciter di ko ñaanal ndam li jiko di ko ñaanal bu amaatee combat yàlla may ko ndam di encourager adversaire am muy Eumeu Sène la xam nga beneen yoon bu amatee combat yàlla may ko ndama ah. aca sama moo fi xewoon ñu jox leen dox daje beneen yoon incha xale yi falal Balla Gaye waaw waaw waaw Balla Gaye doomu waaw waaw dem jëf